katabtu maa ngay bind man sëriñ tuuba wa kulli te saa lépp faaraxa zanba sunu boroom taqale na saa lépp ak i wakkaar wa sirkaa ak ak bokkaale wasaraa mu boole ci jënd rabbi moom muy sama boroom xablu ca jëkk la jëndoon allazi lépp la nga xam ne bixtuwoo jaayante woon naa ko ak moom tarka mooy bàyyi lépp lu àndut ak yiw àndut ak jaamu yàlla te sax ci lépp lu ànd ak yiw ak ak jaamu yàlla ak sàkku ngërëmal yàlla kàllaami samay wax man sëriñ Tuubaa wa niyaati ak saa yéene man sëriñ Tuubaa wa fixlii ak samay jëf man sëriñ Tuuba tawajahat jubale naa leen man ca jëmm janga xam ne ci dara jaam kafaani la ma sunu boroom fegale suu mboolem ñaaw tiif wa durra ak mboolem lor yañ ma doon jiima lor wa sakka ak mboolem xeeti sikki sakka ya ci darajaay yonent bi la sunu boroom fegale lépp sallallahu alayhi wa sallama kafaani ci darajaay yonent bi boroom fegale xaafiisun ci darajaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam sunu boroom wotoo maanihun ci darajaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boroom jalaxale jumlatal hidaa mboolem noon ya wa xaadalii ci darajaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam sunu boroom ommat indi fi man ahbaaban ay soppe te bihim ca soppe yooyee sunu boroom indil ma man Sëriñ Tuubaa muy saay taalibe osoxiru noskaa dina fëse ñoom ak jaamu yàlla kon Sëriñ Tuubaa moo wax népp murit di mel nee na murit saa soppe yi sunu boroom ommat indi ma man Sëriñ Tuubaa ak jaamu yàlla lañ leen di xàmmee Sëriñ Tuubaa wax loolu yaa jàng fii ci téere bii di am daa yaa ngi paas 14 Sëriñ Tuubaa nee na ñi ma yàlla booleel ak jaamu yàlla lañ leen di xàmmee du xuloo du xeex du wenn melokaan wurut ak jaamu yàlla sëriñ Tuubaa ko wax nag kon kuy mbubboo sëriñ Tuubaa te loolu feeñul ci yow leneen na nga xam ne da ngay mbubboo sëriñ Tuubaa waaye sëriñ Tuubaa mbubboowu la moom nee na ay ñoñam ay taalibeem ak ñi ko yàlla ommatal boole leen ak moom ak jaamu yàlla dong dong lañ leen di xamee sëriñ Tuubaa waxal loolu boppam katabtu bind naa man sëriñ tuuba waxas di te saa jubluwaay sukkura rabbi mooy sant saa boroom mu xaati ban ma jëmale samay wax nag liman ñeel yenent ba nga xam ne alayhi salaatu wasalaam ubbuhoo sopp gi ma ko sopp an kalkali ci saab xol sax saxa dankaa ca la yàlla jalaxale mbooleem xeeti tumuranke ya ca sunu boroom jalaxale mboolem xeeti misère ya bëgg gi bëgg rasulullah alayhi salaatu wasalaam ca la amee ngëneel yooyu sunu boroom daqal ma mbooleem luy xeeti museer ak mboolem luy xeeti tumuranke karumta tedd nga yow rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama kulla te kowe nga képp ku mu man di doon yow muhammad alayhi salaatu wasalaam yaa xayra mursalin yaay ngën ji ku ñu yónni yow sallallahu alayhi wa alayka yal na wàcc ci yow moom sunu boroom salaatun xeeti xéewal yoo xam ne tiibuhaa melokaan wax xet ga ax jalal miska gàcceel na laj misk te mu bokk ci xeeti laj ko yi nga xam ne bokk na ca laj ko ñuy xeeñoo ca àjjana te ngëne li yàlla wàcce ci yow ëpp na doole melow laj woowu muy melow gëtt googu kasafta ci sa daraja la yàlla dàqe du jaaxanaa mbooleem suñuy lëndëm lëndëm wa arsadat tanaa te ci sa daraja lanu yàlla jubale maaxan mboole sunu alayka salaamun yal na sunu borom moomu doole wàcc ci yow xeeti jàmm yoo xam ne arfuhoo aw melokaanam yasdaril bunka gàcceel na koomam bank ya amin kuróobiya samay njàqare jalawta anni ci sa daraja la leen yàlla jalaxe ba jalaxal ma ñu dem feneen furut ci man mboolem xeeti njaqare ya yaa miftaahu yow yaay caabey mboolem xeeti yiw ya te wasa yow yonent bi ci sa daraja la ma yàlla jañaxale mboolem noon ya xablu cëg-jëg wal jixla ak woy ya ci sa daraja la ma leen yàlla jalaxale wal ifka ak woy duur ya ci sa daraja yow yonent bi la ma leen yàlla jalaxale kasawta wodd nga saal uri kay boroom ak rafle kama at xamta noonu it nga lelee muy noonu nga joxew ñam jaahiyan ñay waroom ak xiif waxalasta teyit noonu nga xettilee min kabli yii jéng ba yaa ko xettili yaa xayra man fakkaa yaay ngën ji aj xettile ku nekk cib jéng sallallahu alayhi wa sallama ndeysaan wuññi nga mooy teggi nga du jaaxal bi sa lëndemi xol tayit wakkulli sa lépp man sëriñ tuuba amaytahoo aar nga ko bi hifsi lesi ci kaaraange ka nga xam ne muy sunu boroom mahmastaka saa su jàmbatee mustakin aji jàmbat ja aska mu faj njàmbat la ndeysaan ko hon suka say kaas yow rasulillahi tasxiini nandal nga ma ca te it ci nandal googu ngama ca nandal saabu bu saaratin nekk naa ca di boroom mbégte mu yaatu wa tali nga boole ca ommat indi fi man sëriñ tuubaa faydan baawaani may ñu di ak bëbb ak bëbb mooy baawaani may baawaani may yoo xam ne ax jalal bahra gàcceel na mboolem géej ya wal fulka ak mbooleem gaali géej ya isan kitaabuka sa téere boobu di alquran diini mooy sama diine man sëriñ tuuba wax wa téere boobu di alquran xilli mooy saab xarit man sëriñ tuuba wa si teyit mooy sa wéttal man sëriñ tuuba aadaani jube na bi ci téere boobu alhaadi saa njub gi man sëriñ tuuba teyit wa nafsi saa bakkan sàkka sell na bi ci alxuraan ndeysaan kitaabun téere la boo xam ne karimun téere bu tedd la min karimin bàyyi ko ci ku tedd mukarrimin tey ku ñu teral ku fiitu fege naa bii ci téere boobu al ahdaa saa noon ya wasan ba ak wakkaar ya wasirka ak bokkaale ga ci téere boobu la ma ko yàlla fegale yaa ngi jàng téere Sëriñ Tuubaa bi ñaan Muxaddamatul Amda di téere bu mag te sëriñ bi ñaan bayit wu ne taxaw jaamu yàlla juróom ñetti fukki at yi sunu borom nangu yàlla na ko yàlla nangul ci téere bi yow mi dégg yàlla na nga am yiw wow yow mi bég yàlla na nga am yiw wow sëriñ Mbàkke Géy mine ne nu baa ba nu ne bàyyil yàlla na ko yàlla jiital ca yiw wow sëriñ maa bi ma sampoon daara ji ca ngàcc ak mbooleem lu aji ci moom yal na leen yàlla boole ci yiw woow mbooleem kuy jullit yal na la yàlla boole ci yiw woow sëriñ Tuubaa mi bind téere bi nu di ko jariñoo yal na ko yàlla jox yiw woow wasalaamualeykum wenn woy wu ne taxaw yoolab juróom ñett fukkaat ci jaamu yàlla gees nangu yal na la ko ci yàlla defal yow mi déglu yal na nu ko yàlla defal nun ñuy wax yal na ko yàlla boole defal sunu bokki kër ndey ak sunu bokki kër baay wasalaamu aleykum